jëloon teeloon na jël décision ne man kii laa tànn loolu defe naa su defoon euh, euh, situation bi du àgg fu mu àgg nii tey euh, bañ a jël décision boobu nag moo entraîné candidature yu bari yi moo entraîné xëccoo bi moo entraîné lu ñu ragal mooy que implosion am ci APR wala ci ci benn donc responsabilité boobu moom président moo ko war a jël aussi et boo jëlee décision il faut mu sóoraale que na am na ñu narul ànd ak décision am ñooñu naka la leen di gérer. mu mel ni kon candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar nga xam ne ay weer ngi nii ñëpp doon xaar tur gi dootul yàgg dara njiitu réew Macky Sall dina kon fësal turam ci samedi bi. mu mel ni daal kuréel gi nga xam ne moo di alliance pour la république d'APR ak bokk itam ci benn bokk yaakaar ñoom ñëpp ñu ci toftalu nag ñu ngi tokk rek di may nopp ñu ci réew mi Macky ndax rek fi mu ne ñu ngay xaar kan rek la mën a tànn ngir mu tëli liste benn bokk yaakaar ci les jongante di ñëw waaye daal jàpp leen ne daal tànneef bi lu ci mënti am ci réew Macky Sall dina am ay ponk yu bare bari yoo xam ne dina ko bàyyi xel. tànneef li nga xam ne kat moom la njiitu réew mi war a tànn ki nga bi nga xam ne sax ñoo ami ay alliés benn ak mouvement yi nga xam ñoo koy jàppal tànk ñoom gis ne daal la ñu xaar rek mooy kii la ñu daal di tànn maanaam sax ñoom ñëpp ñu ngi ubbi seen i gët di ko xaar waaye lépp sax dafa daal di taxaw gouvernement bi sax daanaka doxatul ca noom war a doxee remaniement bi nga xam ne moo war a ñeel équipe gouvernementale bi daanaka sax loolu nekk na daal

metti lool ndax ñi dañuy jàpp rek dañu rëq seen digg ñu jàpp am ñoo xam kat gis nañ ne ñoom kat dañoo nar a ñàkk ba faw liste candidat bi nag moom daanaka obstacle bu njëkk waaye nag des na koo jéggi ñi sam seen dënd kat ki nga xam ne mooy premier ministre Amadou Ba ak ki nga xam ne mooy Abdoulaye Daouda Diallo ak ki nga xam ne tamit mooy Abdoulaye Diouf Sarr nekkoon fi jëwriñ waaye jamono ji tamit am na ci candidat yoo nar a toftalu waaye ñu gisee ne tamit mooy Boun Abdallah daanaka ñu bëree bëri ñu ngi koy ngawti ngawti waaye nag amul sax daanaka sax différence bu nga xam ne am na ci candidat yii jamono jii ñuy wax ak yéen gis nañ ne Abdoulaye Daouda Diallo moom yaakaar ne kat moom war nañ mën a tànn kon nag ñu bëree bëri gis ne Boun Abdallah Dionne la kon tànneef li nag moom daanaka dafa mujjee nekk sax pataas bu tàng jët ci loxoy njiitu réew mi tànneef lu bon moom ci nii mbaa ci ne dina indi xaajaloo ak féewaloo ci biir APR kon lu mënti xew ñi nga xam ñooy jàppal tànk daal ci nii ñenn ci ay candidat daanaka raison d'état mooy tax rek ñu daal di fippu yaakaar ne kat ñoom war nañ mën demal seen bopp kon mu nekk wàllu nga xam ne wàllum légitimité la kon ci lii ñi nga xam ne ci tànneef lii la nar a tukkee te lépp ku ko waral moo njiitu mi di président coalition benn bokk yaakaar